tey ji la yëglekaay yi li ñu xëyee ak Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa jàmm nga am. jàmm rek euh, soxna Naata maa ngi lay fay bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu euh, sama naataango yoo xam ne euh, ñoom laa bokkal plateau bi mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média naka noonu. Hmm, jërëjëf Cheikh ay ca ñu tàmbali ak l' observateur. ñu door ak l' observateur ca diwaan bu Bakel saisie de 200 explosifs et de 80 détonateurs. à la frontière entre Sénégal ak itam li nga xam ne moom moo di euh, réew bu euh, Mali jàppal ba tey ñetti ci ay ressortissants euh, maliens yoo xamante ni nag teg nañu leen loxo page moo gisee noonu page 9 itam la mu gisee naata bokk na ci rapport wu sorti wu procureur de la République mbirum nag cocktail molotov yi jàppal ne lépp lu soxol itam nouvelle arrestation yi nga xam ne itam daal dina relancer li nga xam ne moom moo di l'enquête bi ci wàll wi ginnaaw lu ni mel ñu wutal yi wax itam ci dialogue wi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal moo ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo séq langu euh, politique bi mu mel ni itam usman Sonko lankal wa nga xam ne euh, moom la lànkal boobu le tàllal loxo ku moywul mënees na ci wéet ñu di itam ci beneen ab enquête mu ñeel kii nga xam ne dafa doon wax rek ne dafa gynécologue la te mu doon commencé di saytu yenn ci ay soxna moom docteur Sophie itam daal nañuy indi ay leeral ci mbir mi nga xam ne itam mi ngi ko doon def page huit euh, bu l'observateur moom moo gisee lu ni mel ñu wutali page onze wi nga xam ne wax na itam ci lépp lu ñeel wàllu caada ak ki nga xam ne moom la ñu xamleel euh, Omar Coy le wuyoo lulu le cinquième euh, fantastique lu ni mel rek daal di titré suñu mbokk yu l'observateur mënees ko am ci kiosque yi wala bokk ci li nga xam ne moom moo di rond-point yi naata. Hmm, bés bi le jour. bés bi le jour ak jant wi nga xam ne itam ma ngay wéy di fenk gën a tàng itam la solaire au zénith la ko rek daal di dippee ci journée. Euh, mondial du euh, solaire euh, célébré aujourd'hui lu nu mel nag wax nañ ci taxawaay bu réew bu Sénégal bu baax a baax ci lépp lu soxal wàll wi ci àdduna wëngal këpp jàppal ne ba tey suñu réew mi mësta des ginnaaw ci lu ni mel page cinq bu bés bi le jour gisee itam ci procès wi ñeel Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr xam ngeen ne lu ni mel ku moywul la xewoon ca fukki fan ak juróom benn ci weeru février mënees naa dikkaat bu fekkee lenn ci loo xam xamante ni njiit bu Pastef lankal na ko ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yëngu ci wàllu yoon fii ci réew bu euh, Sénégal. Mm, ñu jàll ci enquête. dialogue politique bi PDS pose ses conditions mu mel ni itam wax na li nga xam ne moom la bëgg bu fekkee li nga xam ne moom la njiit mu réew mi bëgg antu ñu euh, jëmale réew mi euh, kanam. Mm-hmm. laas lu mu xëyee la mu xëyee bokk na itam ci daloo wi nga xam ne ñu ngi ko doon daloo zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile lu ni ma nga ca diwaan bu Diamniadio lëkkawundi itam bokk na ci euh, gën a coppi xar kanamuk ndakaaru ndax ñenn ñoo xamante ni euh, des na leen fi euh, jëlee yóbbu leen fa nga xam ne itam moom moo di ca diwaan bu jam ñaajoo soxna naata mm-hmm. ñu dem ci le soleil ci loolu la xëyee ci loolee la ñuy des ba tey jàppal ne site bu ni mel ëpp na 62 hectares ak itam juróom fukk ak ñaar ci ay hangar yoo xamante ni ma nga foofu ñeenti téeméer ci ay atelier yoo xamante ni itam sàncee na fa lu soxal itam benn fourrière ak itam lépp lu soxal dispensaire ñu jàll ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, page 2 mu ñeel li nga xam ne itam euh, phase 2 bi ci foofee nga xam ne moom moo di ca diwaan bu jam Diamniadio. Mm-hmm. beneen yëglekaay les ko beneen ab yëglekaay les échos ñu dem ca kaw foofee ci page 2 bi ñu ngi wax itam ci fien yi nga xam ne itam arrêté nañ leen ni ki démb xam nga ne lu toll ci 40 ci ñoom itam jàkkaarloo nañ ak juge bu ñetteel bi cabinet moom Babacar Touré itam xam nga ne amal na aw crise ba tax ne itam ñu daal di koy transféré ca pavillon spécial ginnaaw itam retour de parquet woo xamante ni am na ko ñu wax itam ba tey ci wàllu yoon euh, déficit bu euh, juge d'instruction yi ca tribunal euh, bu grande instance bu ndakaaru jàppal ni itam ci fukk yi nga xam ne ñu ngay wëy di amal seen ak liggéey juróom benn cabinet yi képp donc ñoom ñooy dox ci wàll wi sononaata mhm, ñu jàll ci libération ñu jàll ci libération taxaw itam ci leen li nga xam ne maa ngi ko doon junjur ci l'observateur bokk na ci mbirum kii nga xam rek ne euh, gynécologue la te itam dooroon lépp lu soxal wàllu euh, consultation woo xamante ni nag ma ngi ko doon am saa suy soxna yooyee ñëwee nag la muy leen di euh, wax bokk na ci gën rek tiital leen ngir rek mën a am loo xamante ni dees feesal gafa jàppal ba tey consultation yi nag client bu nekk mu ngi doon fay ci lu tollook juróom benn téeméer ngir rek daal di amal wàll wi ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo seqoon lu ni mel nag ba ñu demee ci kanamu enquêteur ci nekk ci ñoom mi ngi rek nasaxal sa morom ci loole itam lañ leen rek daal di déféré Sononata ca parquet lépp lu soxal itam mbirum Ousmane Sonko moom itam mi nga xam ne dañ koo lànkaloon jéggi li nga xam ne moom moo di euh, tund wi ak yeneen yu ni xeetoo lu ni mel itam jël nataal fa jegeek réew bu Gambie ci yoonu jamono itam ki nga xam ne moom moo di Abdou Karim Fofana mi yor kàddu gouvernement bi yenn ci ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ci ñi nga xam ne itam lu euh, baax taxu leen jóg fi fii ci réew bu Sénégal ay kàddu la yoo xamante ni ah, moom moo ko biral. Hmm, Vox Populi la ñuy dem. la ñuy dem ak itam la nga xam ne moom moo xew ca sous préfecture bu Ndaam ci lu soxal wàllu mbind mi xam nga ne ni ki démb aw ah, pëccëxoo woo xamante ni nemmeeku nañu ko foofee lépp lu ah, soxal itam sous préfecture wi nga xam ne itam caxat caxatee nañ ñetti bureau foofee lépp lu soxal itam vitres yi ñu daal di koy toj ak leneen ci loo xamante ni ñeel na foofe jàppal na itam kenn ñi nga xam ne itam moom moo waral mbaboor mi nañ koy euh, jàpp ndax ñoom ñoo euh, sababoon euh, lu ni mel lépp lu soxal itam wàllu lekk li nga xam ne moom moo di kii gi euh, li nga xam ne moom moo di nawet gi ANACIM itam am na ci loo xamante ni euh, mi ngi koy rek euh, annoncé lu ni mel itam doon luy gën a lool ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay rawatina ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal sànq Cheikh Tidiane mi ngi koy wax ci li nga xam ne moom moo di xibaar yi. Mm-hmm. le quotidien. yeewi ak itam ki nga xam ne moom moo di xalifa Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko ñoom ñaar xam nga ne seen photo dañ ko doon faral di rek daal di lëkkale ci yële jamono itam mel na ñi lu ko xàjjalee ndax dialogue politique bëgg na cee dem kacca des itam daal di lankal njiit mu réew mi lu ni mel. ñu dem ci tàggat yaram ak record tàggat yaram ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di euh, Ligue 1 joueur record du mois d' avril euh, Barthélemy euh, le facteur X de Grénan lu ni Grénan lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bu record leneen itam loo xamante ni mënees na ko rek daal di fësal mu ñeel nataaluk ki nga xam ne moom moo di Boulaye Dia pour effacer di vayo vidéo lu ni mel euh, mu ngi ci li nga xam ne moom moo di euh, page 6 bu record ñu wutali leneen ci loo xamante ni euh, mënees na ko toftal mu ñeel CAN U17 Algérie largement dominée jàppal na itam ñetti bal ci dara la match wu ni mel daal di tëree gaynde Sénégal itam daal di qualifié ci li nga xam ne moom moo di quart de finale yi soxna naata ñu dikkaat itam ci lu soxal coupe de la ligue seizième de finale en retard lu soxal itam jaraaf taxawaay wi nga xam ne itam itam daal na koy am ci wàll wi. ñu dem ci source A. ñu dem ci source A wax itam ci lu soxal itam mbirum Souleymane Téliko siège désormais dans une juridiction euh, centrafricaine lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di euh, page 3 euh, bu source A dessous d'un voyage la rek daal di dippee lu ni mel. Hmm, stade. stade ba tey ci ak itam moom gànn gay ci la jamono itam mel na ni ku nekk ci li nga xam ne nag moom moo di zone de turbulence bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy jànkoonteel ci club. club ba nga xam ne euh, moom la nekk sànq maa ngi koy wax euh, Ligue 1 quatorzième journée en retard euh, mu mel ni nag CNEPS Casa Sport le duel de la dernière chance lu ni mel laaj la woo xamante ni suñu ay naataango yu stade daal dinañ koy samp. Hmm, Sud Quotidien Cheikh. Sud di dikkaat ba tey ci lu soxal wàllu liberté de la presse fii ci réew bu Sénégal xam nga ne itam bi ki bés ni ki tey la ñuy rek màggal lépp lu soxal itam taxawaay wi ak ak yelleef ñeel li nga xam ne moom moo di way xibaar yi wërngal këpp fii bu Sénégal itam xam nga ne lenn ci loo xamante ni euh, daal nañ koy nemmeeku lu li mel mel nag lu réculer ku ci mel ni euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Bamba Kassé muy secrétaire général bu seen Synpics la mu xamle moom moo di nag warul am benn journaliste woo xamante ni caabi war na ko war a mën a féete ginnaaw Ibrahima lii safay moom président appel moom itam la mu xamle moom moo di nag bi ñuy màggal journée internationale wi wàllu liberté de la presse ba tey ay way taskatu xibaar ni leen ràpp ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, kaso bi. sunu làmb lañ euh, sunu làmb dix ans yoo xamante ni mi ngi koy léewtoo ci loolee itam ñeenti te déggul benn yoon li nga xam ne moom moo di daal yi mu mel ni rak Lac Rose nag ñeenti défaite yoo xamante ni daal na koy am jafe-jafe ci wàllu genou woo xamante ni itam mi ngi koy sonal ci jamono itam carrière am mel na nag lu takk suuf soxnaata xanaa ñu làmbaat xool ndax journée yi dafa des ba hmm, te na des na la tey ko ci dafa jaaxase mbir yi hmm, ah. <laughs> ok. def témoin. Euh, témoin dikkaat ba tey ci risque yi nga xam ne moom lañu ñu euh, nemmeeku mu ñeel li nga xam ne nag euh, moom moo di bind mi jàppal lu ëpp trois cent mille nouveaux électeurs yoo xamante ni itam daal nañ koy nemmeeku xam nga ne sénégalais yi nag ci mujjanteel gi la ñuy dem ngir rek daal di amal mbind mi ak yeneen yu ni xeetoo sonaata. Mm-hmm. tribune. tribune di kat ba tey ci li nga xam ne moom moo soxal nouvelle alliance Macky ak itam ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo di ñooñ yu Abdoulaye Wade à kii profit le dialogue deal lu ni mel laaj la woo xamante ni itam euh, suñu ay naataangoo daal nañ koy samp keneen koo xamante ni euh, indi na aw tontoom ci wàll wi moom Bougane Gueye Dany mi nga xam ne itam dàq na lu ni mel ba mu set ndax itam dafa njort ne njiit mu réew mi ànd na leneen ci loo xamante ni mu ngi koy rumbandaat ci suuf. Hmm, ay ca ñu tëjee ak Walf Quotidien ñu tëjee ak Walf Quotidien mu soxal. soxal itam moom Ousmane Sonko daal di rek euh, traversé li nga xam ne moom moo di Gambie ci euh, ak ndaamaram euh, Sonko déchire son contrôle judiciaire mun lu ni mel nag taxoon lépp lu soxal wàllu dem ak dikk jéggi li nga xam ne moom moo di frontières yi ñu daal di koy lankal ci la jamono nag taxaw na taxawaay koo xamante ni noppi na ngir dem fu ko neex sonanaata. Hmm, merci beaucoup Cheikh. jërëjëf ba ci kanam kon. incha allah ba ci kanam tout à l'heure la ñu allah ñu yaatalaat tuuti